Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér Como bueno.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

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الجديد أن وضعك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا ضربت فارصد وإلى ربك فارصد الخير الخير الخير زينب زينب Fane may nañ ko Jibril Fall dëgg ay kilifaam ci teewaayam mooy càng yi ñu ngi ñaan yàlla daal na yàlla barkeel tey yal na yàlla jubale leen def ko seen i wërsëg te defal leen seen i càkk bi te neexal seen ànd yàlla def ci njaboot bu bari ay saalixiin ak ay saalixaat ñu ngi sant yàlla beneen yoon ci daje bi daje fii ci Madinatul Baydâ muy ci jumaa ci néeg yàlla bi te li ñu dajale mooy dundal sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boole ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ni fas yéene daganal seen diggante loolu mooy li waral jotaay bi yàlla dogal ki nga xam ne moom la ñu maye muy ngay na ki nga xam ne mooy bàyyee ñi bàyyee la ko ko muy moo tax bi ñu ooyee wax ñu mbir mii dana ko incha allah dinañ tànn bërëb boo xam ne dinañ ko ko defee mu dëppoo sa pas-pas moo tax ñu tànn bërëb bii di mën a rëkk fayda di bërëb bi Cheikh Mansour Mamoun Niass mu tabax ko ci sa biir daal di nekk yàlla ngir yàlla yu ow ki nga ne mooy xalifa bi mooy kilifa bi mu Cheikh Baye Mamoun nga xam ne conseil bii moo ko waroon a fas waaye tey mu am gàncax dem kaw la loolu moo tax teew waaye mu wëccee fi ñi nga xam ne ñoo koy wut ci néeg yàlla bi ku ci mel ni imaam alxaaj Muhammad bi nga xam ne moo ñu jiite léegi takkusaan dafa bokk ci li nga xam ne lislaam la ko koy fay waaye ñu def ko mu def ko lislaam moo tax bi waajur yi d'accooree ci kàddu ba juboo ci kii nangoo maye doomam gannaaw bu ñuy ñaanee daanaka sëy bi fas na li des mooy daganal diggante looloo waral ñu dégg yàlla bi imam Mouhamed Niass jàng ñaar bi ñu jàng ko li nga xam ne moo fas say boobu ci diggante bi ànd na ne bëri na wuutin ci nit ñi ni ñu takkee si waaye nag nit day dellu ci sunna rek am na foo doon def dañ laa ana kii ñaan ñaanal ana kii may ñaanal bi mu may su paree imam loolu yëpp anam la ci anam yi ñuy mayee islam moom pour di dalal waajur tàbbee rek day façon dañuy des ñaari àll ak simbol ngir nit ñi xam ne ki doon maye muy ñee dafa nii sarwate na naman matawa. Nabuha ko ito. Thank you. Setsima TV, l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur. yu wér